Bienvenue chez Win-Win Partners où l'excellence et l'innovation font que vos projets immobiliers deviennent une réalité. Offre découverte, chambre plus petit déjeuner à 90 000 francs, Azalai Hôtel Dakar, Kurgi, seine Cet été, Venez avec vos enfants à Onomo Hotel Dakar du lundi au vendredi pour partager avec eux des moments de pur bonheur. Cours de natation avec un maître nageur, ambiance et nourriture à gogo. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Matidi.com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 Allure déco. Bombis Cake, le gâteau sur mesure. 1 01 Cake, Carrefour des délices, by Abby. Iconique by Anjara. Sud, Sénégal. Rijal. Nabo Création. Maktoum. Le Pop Shop. Marquita Shop. Minawa. Calmiz. Uma Fashion. Divine Lingerie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 MT Couture, Mam Tcherno Couture, des costumes africains sur mesure avec des finitions exceptionnelles. Adam Soba Protam, Grand Royal Chic. Lady Mouna, Madeleine, Darabi. SD Jewel, Cajor African Style.

<laughs> donc si je comprends bien je ne mun nañ ko je non. <laughs> mun ne comprendre nga yaakaare ko non, tamit ko noonu. gars, pour ah moo jaaxal la après mun nañ dëkk ci commande man wu <laughs> Aliya Sénégal la ñu justement tax nit que valeur si Mangini. Jongena, ni jonge je suis intelligente j'utilise ci pas détails je suis entièrement d'accord avec toi. voilà. du coup tu acceptes. accepter accepter quoi. proposition bi ma de de UGB ci jardin tu sais. Je suis tellement apaisée. Et ça m'a fait se soir, J'ai l'impression d'être un monstre. Tu n'es pas un monstre, Alia. Qu'est-ce que c'est C'est Pas ce Ce un direction, peu pareil. pas direction pour la yoon bay wul nañ ko yaa bul am regret s'il te plaît parce que regret day yàq moment yi nii ñuy partagé soo nar regret na nekk sa diggante ak yàlla fi loo fi gis am na lu ko waral ce qu'on a partagé toi et moi c'était bien plus que tu désires c'était surtout de l'amour beaucoup d'amour Miguel, vous ne pas pendant trop longtemps. Alors laisse-toi faire. lay sant di la gërëm amee di teeru bi rafet na. ma di ko xeeb nag ndax su ma teeloon xam ne yéen a ngi ñëw ñu teral leen nu mu waree. li doon suñuy tànk tey mooy déclaration candidature yi. mi ngi mel ni tukk si ba ñu sañ ba réer te campagne yi dooragul ay bu campagne ñëwee lu waaye doon jaay dina leer. dëgg la man sax dama ci am tuuti retard mais nag li ko waral mooy liggéeyu cabinet bi. loolu lañ la nawee. ndax moo la ngaa wax ni campagne bi ubbi na rek nga jël sa palaat teg ci keneen waaye defoo loolu. loolu xel xalaatu ko liggéey àq la liggéey rek. bettuñu ci yow moo war waral suñu parti ànd sopp réew mi ñëw pour ànd ak yow pour liggéey. te nag ku mel ni yow bu bëggee liggéey réew mi day ànd ku mel ni ñun. waa ci jamono jii ñu toll de seen parti moo gën a rëy ci Sénégal. loolu bi téléphone ba tax na.

bien vrai que ne sama partie bu bees la yeggagul fenn mais nag dama gisagul woon partie bu mel ni yéen bu ma doy pour vraiment ma mun a affilier wu xel daal na <laughs> waaye nag suñu parti bul fàttali dafa am nu muy deme waaw am na lu ma ci lu ma ci xam waaye nag ba dañuy officialiser dara dañuy continuer suñu enquête ndax am na rapport yu ñu a jot yooyu dal na xel macha allah dal na xel bu ñu continuer nag suñu yoon gisuñu la ci benn dégât dinañ dellu si waat. ok. ngi lay def signe pour nga top ma ñu gunge gan yi nga toog ni mel ni ku ma gisul. kon yow loolu nga doon def. bu man lu dugg sa sax. nga wax dara ci Fatma fa leen toll. organisé won nañ ben dîner mais dama ko mujjé repousser. c'est pas mais j'hésite quoi. tu hésites. oui. ndax dernière fois li fi xew yëpp ak maire bi du lii moo ko fi indi donc su ma sañoon nga waxtaan ak yaay booy ba mu d'accord parce que bëgguma def maire bi daral ko nakari mais Khalil yow man maay sa kilifa wala sa ndey mooy sa kilifa wax ji du loolu de yow sa yaay mooy kan ah ba man day damay wax samay kàddu mu ci mu ci am lu mu ciy wax ah daf lay monter contre man xoolal

li ma ko wax lay def. xanaa day fekk juratuma ko. kon Khalil day teggi sama wax appliquer sa bos. te ko. yaay man la walla sa yaay soo defulee li ma wax juratuma la ma des ak Rachid. ak safiedu bima ma fay joge keroog Fatma la fa tassel pendant ce temps là yow yang sous le jupe de ta mère Rachid di def liko war motax xale bi tafu ko ala ne yow la waron jege. papa. man la wala sa yaay wala ma dess ak Rachid. naa def siñ Fatma pour ñu gisee guddi. Khalil. kii ah news correct laa amoon en mbéj bi dafa ndaw. bu nekkee si man ngay yaakaar depuis yëpp nga bàyyi mu sedd. yow mi taxawel na le taxaw may wax sax nga foog mënu ma ko woon booleeg ay boy ñu koj ko ñu sol ma ko ba muy xool benn bët. buñ ko gaañlee ndax après yow ci sonn de nay la hmm. yow kay. pare naa si imbécile boobu bataar boobu clochard con connard lu ma ko bëgg a wax rek xeeb ko. comment seeti nga yow nay la et tu penses pas que bu nga bu nekkee revanche dëkk nga bëgg la pour moi la seule façon c'est vraiment d'être heureuse quoi c'est ngay mën a am sa revanche. ba pare sax man Kadir xaw ma dafa dof xaw ma lu nekk ci bopp bi nan ngay jëlee bàggu jàmbur di ko jox keneen. il manque juste de délicatesse. Leila, xool ma tourne la page. ani Rachid xale bu yaru bop nga xamantene ne du toroxal jigen keroog crise cardiaque nañ ma naroon may si kër gi xam nga ni dafa yox il a toujours les doubles de chez moi. Hmm. jo bobu dal Raphaël dafa dugg ci négam rek Rachid ibi buntu bi man xawna dé may wax. Raphaël cokki cokki jóge fële solu nee na dafay génn alors que Rachel wàccugul woon sax escalier yi te fexe woon naa ba mu dem ñii dinañ ma mës a rey benn jour. bu ñu fa fekkante woon nag mais dëgg la de. waaye li ngay wax loolu. doo torox kon. yow imagine ngam gatché bobu ma jël lu metti diko tek teg Rachel. yow mi dëkk ak Raphaël nag metti wul je sais yenn saa yi dama am envie bayiko mais suma xalaté fuñu jaar yëpp ak fi ma teg sama yaram momako dul may. mani bàyyil sa xel bi ngay fowé. bàyyil ngarale bi. yow peux pas courir deux lièvres en plus yow xam nga ma li du sama jiko. situation bi daf ma dépassé. ban situation loolu. xanaa triangle amoureux. Alia. Raphaël. Rachid Kotan. c'est pas un jeu hein..! Rachid Khana. parce que moom nga xam mais au-delà de lolo, c'est vrai que xaw ma la woon Raphaël à l'époque mais Raphaël man li ma c'est le genre boo xamante ne xam na ni ko bëgg nga ko ba pare même su naroon xeex pour yow du si rey parce qu'il sait que ak lu mu mënti métti métti foofu di mujj yéen ñaar parce que mbëggeel bi nga am ci moom amul équivalence. et c'est mal. c'est c'est pas mal mais c'est pas bon non plus loolu baaxul parce que day foog ne ne que tu es déjà accusé, Alia gis nga góor bu xamee ne que tu es acquise su naroon xeex pour yow sax du si sonn. je préfère góor bu lay traité comme Rachid. góor boo xamante ne dina la guddil ba jëkkal la góor boo xamante ne yaay centre de sa vie en fait. wax nga dëgg dama xamul sax kan mooy gis genre boobu di defante ak moom. je sais. alors on garde Rachid. il a passé 9 ans de sa vie à m'écrire un livre. Non, la ce xeexalee mbëggeelam si man et pour vous ça ne compte pas mais xeex na à sa façon. Rachid Ou Raphaël. su ma réponses réponse di ngeen ko pour l'instant c'est bopp yi focus que c'est dîner bi. diversion acceptée. fotol non ça, est auto yëpp jot nañ invitation. parfait. ndax la sax ñu am lu ñu distraire. eh les deux. ay affaire distraction de. c'est un dîner de remerciement. kawe naa génn ay problème am sant yàlla loolu moo ñu yóbbu si dîner bi ok. ok ma xool li ngeen def. kooku ki jooy fii. kii kii moom mbëggeel moo ko sonal. mbëggeel problème xol. am huile am na AO kër ni jaay Kër Nijaay Senak am na qualité c'est garanti Kër Nijaay Senak nga ni ma Kër Nijaay Senak fourneau jàmbaar ak sakanal àndandoo yu wóor ànd ak programme NDEF Fonds Vert climat bu coopération allemande GIZ votre marque de maroquinerie de luxe. Maggie Event Shop, la meilleure adresse pour vos besoins en événementiel, tenues et accessoires des mariés, tenues de bureau et autres cérémonies. Bienvenue chez Bamba Partenaire. Amana African Style léegi pour euh, soirée Alia bi dama bëgg. Rachid du ma sa garçon de course soo amaatee ay course professionnelle mën nga ma woo si c'est personnel génnee ma ci. yow baa du li xew démb moo tax ngay réagir nii. waaw da nga commencé dépasser les bornes te da nga ma humilier. je suis désolé Fatma man ak yow yàgg nañ blessé la du lu may mais il faut que tu comprennes que moi je n'ai rien à t'offrir. wax nga ko répété nga ko amul problème dinaa fëgg feneen. tant que c'est pas Khalid rek man ça me va. loolu yow yaa koy décider. attends yow bëgg ma énervé moo tax ngay wax lii néew mu woon keroog xaw ma intéressé wu la. keroog nga wax su ma décisions décision sérieuse nag. nga de sama vie totalement. Hmm. te du lii laay wax pourquoi yow nga égoïste est-ce que tu sais ce que ça fait nga bëgg nit mu jaral lu nekk nga bëgg ko ngir yaara rek a tax mu lay humilier di la tegal ay ultimatum. du ultimatum Fatma choix la parmi option yi nga am. Hmm. encore wax nga ko répété waat nga ko. tu n'as rien à m'offrir. écoute yow comprendre loo en fait man dérangé wu ma nga dem ak Khalil dérangé wu ma mais moment bi nga bëgg a commencer di ko fréquenter mënuloo nekk samay côté xanaa kay loolu leer na. Va te faire foutre, Rachid. Continue comme ça. Tu vas finir seul et misérable. T'inquiète pas, je hein. vais pour récupérer les mamans. Tant mieux pour toi. Ça va, boss Oui, ça va. Salam alaikum. Alaikum salam. Hey Boss. Bon gars, comment vas-tu Ça va très bien, Alhamdulillah. Tane nga léegi. maa ngi tane bu mais j'espère que tane nga vraiment pour reprendre. oh oui bien sûr. ça m'avait manqué. da <laughs> nga am jom nak loolu moo neex ci yow. <laughs> mais xam naa ki de ce retour? Ça y sa Mais to nga xara <laughs> du ko nangu. Ça de. Wa boss. Raaf waay kañ nga fi gaañ. léegi ok da ngay reprendre xana. oh loolu laa bëgg kay. en plus xawoon nga fi xawoon nga fi manqué hein. Mo tax nga war mo jox cër saa yi. oui ma man convalescence la jógee Ma ngi bëgg a dee ak xëy fi mu toll nii. fi nga newoon daanaka woon coob. yaa ngi jeex nii. saa yi bàyyi mu sédé gee. oui mo duñ ciop amna fi. bien sûr amna fi. mais brièvement ba pare lan mo fi jotee. bon à part tam. jot nañoo déggante. affaire chef cuisinier. Ouais. mais boy, tu t'imagines instant yi booy ma def ma mu def ma chef cuisinier en plus boy, c'est très recherché en plus c'est bien payé. ah yalla bana, yalla yàlla na defal baye. amiin en tout cas boy, bu ko defee boy, dina dina dina baax trop ba pare dina ma yombal lu bëri. non da koy day baax sax inshallah. oui ma. nañ dem nga gérant baye man dama xiif fi mu toll nii. ah yox la. Monsieur Tall, sincèrement, je suis mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise, moi aussi. Vous croyez que ça m'amuse de digérer ce genre de détails Sauf que pour Man, ce n'est pas un détail. Ça concerne une personne qui compte énormément pour Man. Et c'est hors de question que Mokoy Bay def n'importe quoi de sa vie. Alors, je n'ai pas le droit de parler de la vie des détenus, même si je pas un kasso. Ce qui m'intéresse, moi, comment ça se fait-il que Raphaël Lee, condamné à 12 ans libéré après 9 ans, avec tout ce qu'il y a dans ce dossier Mais parce que le est mort..! là. ok d'accord Les xam là lan laa soxla nga exactement ce qui s'est passé entre Raphaël et co de boobu bi prison je veux tout savoir fait ou rumeur tout je t'écoute

Ce qui veut dire que réservé aux table. Non. Ok. Arrête-le. Au ben envie de <laughs> Yo, au ben sens de l'humour. Hein. Je préfère le sens des convenances. Réserve une table. S'il te plaît. waa Alima yow mënoon nga yegg si si biir nag sa papa nekku fi. ñaay yow da ngay kaf wala. ah bon <laughs> kon bàyyil mu sedd. Hmm. lenn dinaa la ko yëgal. nii moom mënu leen ko continuer ba ngeen di dee de yow sa papa sa xarit la. loolu xam naa ko. ah toona fi lan moo tax may sonn nii. Hmm. dama ne ñëwal nga sukk nga jébbalu ko parce que lii moom du continuer te sa sëy bii nga teg ko fële yoo xam nga ne sa papa moom boo ñëwee ci wetam da lay accueillir bu baax du la mës a sànni. doyul gis ma nekk di muñ ñii ko def nii c'est pas juste pour yar Amedine hmm. c'est aussi pour mon père gis nga Amedine dafa ma wor wor ko te dama bëgg sama papa gis ne man mi créer problème bi man may ki koy saafara. centre commercial yi bi tax mu jaay sa terrain yi pour neexal ko mu yor mom fu mu toll. autorisation la ñuy lijjanti noonu. autorisation <laughs> wa baax na yow de gis nga bés bu ko tabaxé bu yóbboo nga yoonu say dal te daw te xamna sa papa du le mës a baal loolu mbaa yaa koy sóoraale. <laughs> xana ma dee de

gis naa loolu kay. pardonné on verra. si mais Alima yow defuloo yow sa doom nga jël di ko def arme. su ma ko deful woon bàyyam def ko yey ma. ah ne wa da ko tegal ultimatum budul moom rek di yow. dama soxla woon Amédine fàtte ma tuuti.